Bienvenue sur Salam Vision. allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ju ànd ak vision fu sori waaw mooy Salam Vision yéen xamante yéen koy seetaan dama leen di digal ngeen teel dem gaaw abonné ci Salam Vision mbaa yëg nga leen ñun ak yéen dañuy ànd dem ci waaw. waaw bu laajte xam nga ko gàmmu gàmmu. ñu fas yéene ànd dem Tiwaawoon gàmm jour si gàmm lan demee gàmm ñu ànd ak yéen lépp loo xam ne day tukki Tiwaawoon waaye lépp fépp foo xam ne ñi ngi fay gàmm guddi yonente bi alayhi salaatu wasalaam ku waa Salam Vision fas yéene ànd ak sama équipe dem teewal leen fa ñun waa Salam Vision fépp fu ngeen bëgg a dem te seen tànk jotewu fa ñun waa Salam Vision dinañ ànd ak yéen duggal leen biir Tiwaawoon dugal leen li wër Tiwaawoon fa séene leen a lan moo waral dëgg-dëgg dëgg ñuy gàmmu waaye lan moo waral dëgg dëgg dëgg dëgg ñuy màggal guddi yonente bi alayhi salaatu wasalaam yow lu ko bëgg xam dama lay wax en suivant sa baaram foofu nga daw gaaw abonné ci Salam Vision mbokk yi Salam Vision daal coono askan bi rek moo ko tax a jóg Salam Vision jàmm ju ànd ak xiiwal allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim loolu benn la ci al islamiyatu ba tey suratu imran la yàlla dafa wax ni wa man yabtaxi xayra islaaman diinan falan yuqbal minhu wa huwa fi l axirati min mooy lan képp koo xamante ni dafa jël beneen diine bokkul ak diine yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla nee ëllëg boo ko ëndee ci ci kanamam du ko reconnaître wa sunnatu nabawiya boo demee ci suratul ahzab yàlla mi ngi ñuy joxoñ yonente bi alayhi salaatu wasalaam laqad kaana lakum fi condition la ca teg moom li man kaana yarju llaha wal yawmal axir ki nga ni gëm na àllaaxira ba am ci yaakaar fayut yàlla ëllëg ba ko koy moom bi mujj nag mooy wa shukrullahi fi Sénégal boo demee ci suratu Ibrahim yàllaa ngi ciy wax ni la in la azidanakum di ko wax ne ko na nga moytu ndi ko tooñ bi ci gën a mooy nga tooñ borom bi subhaanahu wa taala te mooy lan nga bokkaale moom ndax nee na tooñ lëndëm la yowmal xiyaam ñi dem aljana nag ñoom dañuy ànd ak leer kon nag boo amul leer xam nga fi te war nañ ko jombale suñu kon kuntum xayru ummatin uxrijat linnaas ta'muruna bil ma'ruf fekk nga nekk ngay digle lu baax fekk yow maîtriser nga lu baax loolu ba di ko def ba boo ko diglee ñu xam ne lii kat mérité nga ko ci digle bi wa tanhawna anil munkar ngay tere lu bon te bàyyi ko gëm yàlla nag su ko defee rek yàlla indi yërmande ah su ko defee ñu gàttal rek ndax tànk bi am na borom dañ doon nuyoo rek doon présenté umma bi euh, ñu bàyyi xel ci ni ummatul islamiya sunnatu nabawiya wa sunnatullah fi Sénégal alquran la loolu nag tarbiya la ndax benn tur bu ci nekk rek boo bëgg a adopté ak moom da ngay jéem a def li nga di kon wasalaamu aleykum wa rahmatullah ngeen baal allahuma salli ala sayyidina muhammad jariñu ndax euh, ñu mën a am euh, li nga xamante ni moom la yàlla bëgg ci ñun ñuy sant yàlla bu baax duñu yàlla may ñu fekkee bés bi ndax bés bi bés bu mag la ci ñun bés bu mag la ci jullit ndax ñun suñu dund yëpp Eh, Seydina Muhammad rek eh, moo ko waral ndax damay wax ne moom sàkkuñu de waaye moom moo tax ñu sàkkuñu kon nag suñu dund dañ koo koo warlu ba tax na eh, ñi ñaan yàlla mu may ñu fekk koy at yu bare bari te képp koo xamante ni rek def nga ci sa dërëm wala nga def sa doole wala nga sonn ci lépp loo xamante ni rek sa bëgg-bëgg la yaa ko xam ñu ngi ñaan ci daraja yonent bi yàlla fajal la ko barki sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alamin eh, kàddu ñu ci sànni nag eh, du bari li ñu bëgg rek mooy ñu fàttali nit ñi ne eh, lii li ko waral mooy ñu màggal juddu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom moo waral lii lépp ñu gis bâche yeeg chaise yeeg li nag yi rek lépp liñ fi def dañu koy màggalee juddu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alxuraan nañu fi jàng lépp dañ koy màggale yonent bi sallallahu alayhi wa loolu rek moo ko waral yonent boobu nag soo gisee ñu màggal juddoom dafa indi ci àdduna li nga xamante ni moom mooy leer moo muccal doomu adama yi moom moo tax ñu mel ni ñu mel ba tax na kooku ku mel noonu booy màggal guddeem da nga koy teg ci li nga xamante ni moom mooy sunna sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax màggal guddeem baax na waaye dañ koy teg ci sunna sayyiduna muhammad sallallahu lépp lu ñu fi wax mbaa ñu def ko fi ñu ñaan yàlla yàlla na dëppoo li neex yàlla sunu borom bu ko defee ñu mën cee am li nga xamante ni moom la wut ndax ñu ay mag du jël seen alal def ko ci dara yàq seen i nelaw ba pare duñ ci am dara loolu nag yàlla ñu ci àll te loolu liñ ci mën a dimbali mooy ñu xam ne fii ñu nekk dañuy jaamu yàlla lii ñuy def ñu jaamu yàlla bu boobaa nag eh, lépp li ci nekk danañ ko mën a jariñoo beneen bi ci des nañu fàttaliku ne kii ñuy màggal tey dafa am lu ko taxoon a jóg yàlla daf ko yónni woon ngir mu indi jikko defar doomu adama loolu moo tax yàlla sax dañuy faral di waxtaanee Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa tax ne Abdoulaye ko jur Aminata mooy yaay màkk la dëkk loolu yaakaar naa ne Sénégal yi xam nañ ko li ñuy wax farafat mooy moom dafa am mission bu mu doon dox si yàlla daf ko yëndu woon ngir mu ñëw defar doomu aadama ngir mu nekk royukaay ngir mu roy ko ngir mën a mel ni moom ndax képp koo xamante ni toppaloo yonent bi sa àdduna dana yàqu sa alaaxira dana yàqu lii mooy dëgg képp ku fi roy keneen te royoo yonent bi sallallahu alayhi sa àdduna dana yàqu sa alaaxira dana yàqu li man ma la ko wax te balaa nga koo xam nga dee ba ñu suul bu ñu la suulee foofu ngay xam ne roy yonent bi mooy dëgg te doomu àdduna dund doomu aadama mënul dox mënut a jag mënut a normal lu nit ki dafa roy sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax moom mooy seydil kaw nañu univers bi nga nekk nii moom mooy patron bi kooku kenn mënul dund te doo ko rey mënul nekk wala nga xam ne mala ngay doon lu Oustaz doon wax léegi rek loolu ngay nekk kon maa ngi dénk sama bopp di dénk nit ñi ñu fàttaliku ne dañuy dee balaa yàgg fii kii kenn du sax am na fii paa yi fi nekkoon ak ñun nit ñi fee ñu suul leen Pikine ñëw fii toog di naan ataaya di añ kër goo gis am na ñu fa wàññeeku xam nga ne dangay ngay dem fàtte fàtte wala fi nekk kenn fàttewu na nga xam ne nag waxoon nañ la ko boo nekkee ci biir bàmmeel yàlla dana laaj loo fi defoon loo fi wax wala loo fi def da nga ko rendre compte suñu borom lii nag sama bopp laa koy njëkkee ndax moo tax ñu jox ma micro bi ndax bu dee man ak man rek kenn ma laaj dara xam ne ñaw ma xam-xam amuma xaalis siwuma boo defee nag man tey ma dégage sama responsabilité keroog ma jàkkaarloog sama borom ma wax ne ko bañ ma joxee micro waxoon naa leen ne sama papa jàngaloon na ma ne wa ma xalaxtul jinna wala insi illaa liya'budun ndax ne leen ne bindu nit ak jinne ngir lu ñu jàpp kon lu fi waaye def na nga xam ne sa responsabilité la loolu mooy dëgg ngeen baal ñu ci wax ji ñu ngi jégalu bu baax di ngeen yàlla moo ñu fekk at yu bare bare te yàlla nangoon suñu jaamu yàlla daf ñu ay dëgg-dëgg jullit ci daraja yonent bi allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim alhamdulilah alhamdulilah may nañ leen ko ma may nañ leen ko xam nga lu tax na la am lu mu wax lu am solo ah, yéen a ngi may déglu ma ne na la am lu mu lu am solo nee na borom tabala ji tabala sunna la mu ne am na ko bul foyeti tabala nan la nee na ko bul fayati tabala na ko bàyyil am na am na bu mu tëgg nag boobu xaw ko jiba xaw ban la wax noonu ah waaw ah, mu ne ko cóol boobu ñuy wax cóol mu ne ko bu ko ci booleeti bokk ci ah, xam nga lu tax ma ne may nañ leen ko keroog ba Seydina Muhammad a Màkka di ñëw Madina nan la wax na ko léegi tabala moo ko teeru tabala moo ko teeru nan la way na ko léegi li mu zikkar ne taalal badru alayna keroog bañ koy sikkar tabala doon tëgg te it ca bés boobu am na jigéen ñuy fecc oustaz daan na ko wax am na jigéen ñuy fecc ba kontaan te yàlla nee na Seydina ba mu doxee da ne may nañ leen ko ndax lan seen mbégte lañ doon wane te nag dafa am beneen affaire bu am dafa am beneen affaire bu am gis nga kulli xisbin bi maa na farixuuna kuréel gu nekk ci li ñuy dund ci loolu la ñuy kontaan ñun ahlu sunna lañ Seydina Muhammad la ñuy dund kon Seydina Muhammad lu bokk ci moom def ñuy bëggal te tabala daa bokk ci moom loolu rek tax ñu boole ci tabala de te bala daa bokk ci rasulillahi moo daa ñu boole ko ci pour mu dundal ñu ndax daa bokk ci lu doon dundal Seydina Muhammad mu mel ne heure baa ngi dem te ba ñu gàmmooguñu te ba tey gàmmooguñu ma kon ne ma noppi ma ne heure baa ngi dem te dafa mel ne ba tey gàmmooguñu ndax gàmm dafa am lu ko tax a jóg xam nga la moo tax a jóg gàmm wax la kan mooy Seydina Muhammad loolu lay gàmm waaye sëñ Fadal wax na léegi am na lu mu wax Muhammad ibnu Abdullahi mu ne Abdul Mutalib Xaasim continuer mu ne taxu ñoo jóg ndax ñëpp xam nañu doomu Abdoulaye Diack Amina ñépp xam nañ ko Sénégal Sénégal koo wax boo waxee Mouhamad mu ne la boo nekkoy papaam mu wax la ko boo ko laajee yaay mu wax la ko fu mu juddoo mu wax la ko fu mu yaroo mu wax la ko nu mu wootee mu wax la ko loolu ñëpp xam nañ ko waaye dafa am loo xam ne moo la war a gën a yitteel dama lay wax gàmm gu li ñu war a laaj sunu bopp te war koo lijjanti mooy ñaar yii man huwa muhammad ak maa huwa muhammad ñaari question la ñaari question la boo nee maa huwa muhammad waxatoo waxi jëmm ma ne boo nee maa huwa muhammad waxatoo waxi jëmm boo nee man huwa muhammad jëmm ngay waxal maa huwa muhammad mooy lan mooy muhammad man huwa muhammad mooy kan mooy muhammad may doomu aadama bu ne war ngaa xam kan mooy muhammad ak lan mooy muhammad eh yéen xale yi yéen yéen a war a gën a déglu ñëpp dégg ngeen yéen xale yi yéen a war a gën a déglu ñëpp xam nga li tax ci yéen ñi leen yaakaar ëllëg ñun dañoo bëgg ëllëg yéen ñii ngeen nekk fii yor ahlu zikkar dañoo bëgg ëllëg ngeen nekk fii di déglu rasulilaay di kontaan dañoo bëgg sax ëllëg yéen seen bopp ngeen di waxtaane Seydina Muhammad mais bu ngeen ci bëggee boole ay wax ak nekk ci leneen du sotti dégg ngeen kon ngeen déglu dégg ngeen waaw kay ma ne bu ne war ngaa fexe ba xam lan mooy Muhammad ak kan mooy Muhammad wax naa la ko fi waxaat ko fi te dinaa ko waxaat tey bu ñu nee lan mooy Muhammad waaw dama ne bu ñu nee lan mooy Muhammad buñ ko bàyyee mu tontul boppam ñu ne lan mooy Muhammad yàlla tabaaraka wa taala ne kuntu kanzan lam uraf fa xalaqtu bi aarifuni yàlla nee na maa fi nekkoon doon ku ma kenn mënta xam ñu ne ah, mu ne waaye ma bind benn mbindeef ci mbindeef boobu la ñuy jaar ba xam maay kan kan mooy boobu yàlla nee ma fi nekkee man dong yàlla ne damaa xaaj sama jëmm ji tuddee lii jalaal tuddee lii jamaal jalaal di jamaal ci jamaal jamaal di jalaal ci jalaal ma génne ci leer gu ñuy waaye nuuru kamal mu ne leer googu ci laa dugal xalima na xalima uktub xalima daa tiit ba dam ma jot a benn noq fa nee na fa boobu bind lépp loo bind man yàlla li des ca leer gi yëpp mooy Seydina Muhammad rasulillahi xam nga lan moo ko tuddee Muhammad xam nga leer googu lan moo ko tuddee Muhammad ndax nuuru kamal la tuddoon bi ko yaa tegee benn barab leer nga da sant yàlla yàlla maa ngi lay sant yow ma tànn sa bopp def ma sa jàmm yàlla maa ngi lay sant yow ma tànn sa bopp def ma ma mat yàlla maa ngi lay sant yow ma tànn sa bopp génnee ma pour ma doon jaam bi nekk reconnaissance sa diggante sama digganteeg yow noonu la noon la jàppee cant ga noonu la jàppee cant ga ba yàlla na ko gees na ko ante muhammad na ko ante muhammad habibi na ko yow yaa ji cant gi ah, mu ne ko sama soppe loolu mooy muhammad buñ la laajatee lan mooy Muhammad loolu ngay tool neel Muhammad leer la du nit jërëjëf sama séeri ko Muhammad du nit leer la waaw te mooy leer gi yàlla njëkk a bind mu doon li mu doon Maodo wax na ko Maodo wax na ko nee na Muhammad nuurun la minan nuuri xat aadaatu xikama tafiidu faydan an il axlaaqi yallaahu mu ne nuurun minal nuuri demaat tuuti mu ne nuurun mubiinun la aataa nuurun mubiinun lirshaadi ibaadi jamian rabbi yallaahu demaat tuuti mu ne la xanaa xamoo ne xaqiqatul kawni ayn zaatu talaatuha ifaadatullaahi la waaye nuurullaahi yallaahu ndax Seydina Muhammad la ñuy waxtaane waaw non bàyyi rek tey amul arrière Seydina Muhammad la ñuy waxtaane ma la Maodo nee na ko bañ ko ne kan mooy Seydina Muhammad dafa ne njool màkka leer la gu jóge ci leer leer la gu jóge ci leer waaye ñu def ci moom xikma ngir lan ngir mu ñëw fajal doomu aadama seen soxla maanaam defar leen ba doomu aadama yëpp nekk ñoo xam ne ëllëg yàlla da leen di yërëm ñu ne ko leer gi ngay wax kan leer la bu ne leer gu màgg la gu jege ci leer gu màgg ñu naa ah mu ne ñëw pour jubal doomu aadama yëpp nekk ci yàlla ñu ne ko leer gay waxal gan la mu ne xanaa xamoon leer gii may wax bu dul woon moom yàlla du bind adama addu àdduna ñu naa mu ne yàlla bu bindee àdduna ñu naa mu ne njool makkaa tax ndekete yàlla bi mu bindee àdduna wanewuñu de mane ne du ñun ñii sunu jëmm yi ñun ñii ñoo tax yàlla bind àdduna déedéet ndeke yàlla daf ñoo defar fii ci àdduna pour wan ñu kan mooy Seydina Muhammad ma ne yàlla daf ñoo defar ci àdduna waaye pour wan ñu kan mooy Seydina Muhammad moo tax seen bëne wala si utiye maa yashaaw mu ne la xoolal doomu aadama dina ñaan dara sax yàlla bañ mu ne doomu aadama dina bëgg dara mu teel ko lool yàlla nattu ko ca mu ne doomu aadama dina wër dara wër dara wër dara ba sonn yàlla na téye loolu parce que yàlla da kaa dencal ñeneen mu ne doomu aadama dina soxla dara ak lu mu jubóog jubóog yàlla yàlla bañ ko koo jox mu ne waaye Seydina Muhammad amul lenn lu mu soxla te yàlla defalu ko ko nee na xoolal Seydina Muhammad rek la yàlla defal li mu bëgg moom rasulillah lu mu wax nee na njool Makka la ñaanam masul dellu ginnaaw amul kenn ku dul Seydina Muhammad keneen ku ñaan sa ñaan mas naa dellu ginnaaw ba mu des ñaanu Seydina Muhammad nee na njool Makka rek la yàlla tabaaraka wa taala defal lépp lu mu bëgg àdduna ak àllaaxira njool Makka la ko yàlla defal nee na njool makka la yàlla tabaaraka wa taala ne ko naa la teral àdduna naa la teral àllaaxira yow Seydina Muhammad nee na ku mel ne Seydina Muhammad jigéen dootul sukk jur kooku di rasulillahi nee na maa ngi koy giñ ci li yàlla tabaaraka wa taala bind mu nekk ci asamaan wala mu nekk ci suuf mu ne boole lépp te xam ne njool makka ka moom ma ñëw loolu rek laa soxla woon ma ne loolu rek laa soxla woon wallahi maa fi l ardi wa samaayi ku fan li ahmadan min arasiyaay xoolal ndekete lépp njool màkkay borom ma ne damay dellu si siwaat ci wax ji ibaa gaa yi ñuy wooye ñooñu boroom si kim yi di wax bëgg bëgg wallahi sallallahu alayhi wa sallam gàkkal sunu gàmm ma ne ndekete ndekete lépp lu yàlla bind njool màkkaa ko moom wallahi maa fi l ardi wa samaay kuffan li ahmadan min al asiyaay nee na maa ngi gën ci yàlla ne lépp lu nekk ci asamaan ak lépp lu nekk suuf ñeel na Seydina Muhammad ci yàlla tabaraka wa taala bind waaye dama ne koo xam ne lépp moom la ñeel waaw oustaz nee na oustaz nee na buñ tuddatee Muhammad mu ne yéen ñëpp na ngeen wax sallallahu alayhi wa sallam maanaam su ma neetee Muhammad yéen ñëpp ne leen sallallahu alayhi wa nee na parce que daa wax mu Seydina Muhammad ne ki gën a nay ci doomu aadama yi nee na ku nay du dugg àjjana te nee na kooku mooy koo xam ne buñ tuddee turam du ne sallallahu alayhi wa mu ne te yàlla dafa libéré Seydina Muhammad nee na julli gi nga xam ne boo ci waxee te tey ko julli ga day yàqu mu ne yàlla may na la boo déggee ñu tudd Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa te nga nekk ci julli nee na fu mu la fekk ci julli gi neel tekk ne sallallahu alayhi wa nga ne Lady, don't سكليلي وسكن إليه مصطفى يعلم الإسلام ما شاء الله waaw Oustaz nee na ndax xam naa lu waral loolu wala ndax xam ngeen lu waral loolu nee na julli ci Seydina Muhammad lañ ko wàccee képp képp kuy julli mooy ca chef ci julli moom Seydina Muhammad nee na liy loolu mooy boo demee Kàncaaroy bu demee Kàncaaroy mu ne nga gis fa caporal sergent adjudant ak commandant ay grade la mu ne kenn ci ñoom ku ci génn gis sa grade gis sa grade ku la ëpp grade loo doon def loo def da koy bàyyi da ko naan yalax daal di kooku dëgg mu ne loolu ci Seydina Muhammad lañ ko royee moo leen may boobu daraja moom rasulillahi moo tax boo déggee turam nee na ak ci loo mënti nekk mu ne bàyyi loolu ne sallallahu alayhi wa sallam nee na nga koy wax benn nee na yàlla ci boppam julli ci yow fukki yoon mu ne nga julli ci moom fukk moom yàlla julli ci yow téeméer nga julli ci moom téeméer nee na yàlla julli ci yow junni ak i malaakaam te dee na balaa ngaa dee gis sa place ci àjjal macha allah nee na yent ñoom ñëpp ñoo am garat ci yàlla waaye tolloowuñu yéen ci bay seen supérieur ñoom ñëpp nee na moo tax bi muy dem ci guddeeb googu di rafiqul aala nee na ba mu demee baytil maqdis loola doon prouvé seen ci ñoom ñëpp a nekk ci ginnaawam mu jiite leen moom Seydina Muhammad macha allah wallahi jërëjëf oustaz euh, sama gaay mane mane euh, lii ay xéewal la nañu ànd ak dal ma nañu ànd ak dal xam nga tàng na ba ñëpp yaakaar taw arrêté na daa tàngoon ba ñépp yaakaar ne taw yi jeex na démb ak tey mu taw mu commencé waat taw duñ sant yàlla ah nañ sant yàlla te beneen mbir mi xam nga lan la du ñu ay suukar nag ak xorom ma ne du ñu suukar du ñu xorom ndox mi mënul ci ñun dara du ñu seey de du ñu seey nañ xool place rek jekki-jekkal place te toog te xam ne moom ndox mi day def rôle am rek nañ def suñu rôle ñu nit ah sama jarbaat macha kon nañu la dara te sant yàlla te xam ne li yëpp ci xéewal rekk la kon li oustaz wax rek laay dolliwaat firndeel xam naa ne moom euh, <coughs> jërëjëf euh, xam nga xam nga xam nga dañuy wax ne ñaan bu bu bu nangoo sonal borom dañ ne ñaan bu nangoo sonal borom te ñun ñoo tànt bàyyi suñu yitte bàyyi suñuy nelaw bàyyi suñu lépp njar ndax njool màkk dañu ko jaral kon bu lii amee dañuy xam ne sant yàlla la ndax lañ doon def yàlla nangu na ko ñëw leen rek ñëw leen nii Seydina Mohamed voilà ama ama nañ noppi ma ne su ma gisoon lii si ñu bari dinaa kontaan xam nga lu tax yéen ñëpp defaru seen kanam yéen ñëpp a yéen ñëpp ba defaru ku nekk pastelu nga ñii maskelu ku ne def nga dara waaye moom tey gisul puudar gisul maskara gisul dara xam nga lu ma gis sant yàlla ci lii di am ànd leen dal rek ànd leen ak dal rek ànd leen ak dal ànd leen ak dal ñaanal ma aji ba dama ñaanal aji ba waaw ma toog leen ñu ànd ak daal am ñu ko téye bi dama nga ñaanal la eh tego ay tego tego lama dabal tabi ay nay ni ko loolu ñu doon ñaan yàlla moo tax ñu dépensé suñu alal bàyyi suñuy liggéey jël sunu jot ak sunu waxtu yëpp def ko ci guddi gi kon bu ñu tolloo ci lii ci instant bi ci waxtaan di waxtaan ci Seydina Muhammad di waxtaan ci leeru rasulillahi yàlla tabaaraka wa taala dañu woon firnde lu man nii nan sant yàlla ma ne sànq wax naa leen ne 1993 daa leen commencé gàmbul waaye man maa ngi soo gis gàmmu gu mel nii mbir nag boo ci nekkee di ci dox yàlla di ci def ay teraanga di la ko wan da nga kaa war a gisal sa bopp lii firnde la ci li nga xam ne ni moom lañ doon sàkku suñ diggante ak suñu borom ndax yàlla bu fekkee day nangul jaamam wala mu koy defal xéwal faaw mu wan ko firnde ca la nga moom la koy defal kon nag firnde saa ngi nii nanu sant yàlla te xam ne ki ñu mooy waaja adduna ku fi bëgg teraanga àndal ak Seydina Muhammad alaxira ku fa bëgg teraanga àndal ak Seydina Muhammad la àndal ak Seydina Muhammad ku bëgg doo xeebu àndal ak Seydina Muhammad ku bëgg a tekki adduna ak alaxira àndal Muhammad ndax njool makka rek ka jara ku dul Seydina Muhammad boo ànd ak moom di nga ko rëcc wala booy ànd ak na moom ndax rasulillahi kon sama wax mooy nan sant yàlla ci li nga xam ne moom lañ yàlla tabaaraka wa taala defal nanu sant yàlla ba yàlla tànnee ma ne nanu sant yàlla ba yàlla tànnee ñu doon ñi nga xam ne ñooy dund tey bés bi xam nga lu amul firnde baaxul ma ne lu amul firnde baaxul Pa Moussa ngi nii sama xarit la gàmmu musu fee xam te defu ci loxoom waaye gàmmu bu nekk yéeneem mooy nii mu def tey mu def ko maanaam ñëw teew fekke gàmmu gi waaye ñaata yoon la bëggoon lu mel ni yàlla defu ko a chaque fois bu daan ñëw ci gàmmu gi cinq heures du matin dana paase dana fekk ma pare ba gàmmu gi mu ma naan man à chaque fois dag may nax ndax su ma bëggee ñëw fekkee la du ma am temps fekke la waaye xoolal yàlla pour wala ne yàlla lu muy def am na firnde yàlla teel na ko di ren mu fekkee gàmmu gi ba fekk lii fi am fekk xéwal yi fi ndax da cee bokk moo tax dama ne doomu aadama bul neewal dara man gàmmu ren gi gis naa ñoo xam ne ba ñëwee gëjee ñëw gàmmu yàgg na ñu ngi fii toog jàkkaarloog man ma xam leen bu baax ñu xam ma bu baax li leen andi ren xamuñu ko sax ma ne li leen andi ren xamuñu ko yàllaa ngi nii ma ne yàlla moo ngi nii bu naree defal doomu aadamay xéwal ñu bokk ci xéwal ga yëpp fa la ñuy nekk waaye ñi fi teew ñëpp yàlla defal leen ay xéwal ma ne nan sant yàlla ku santul yàlla yaa ngi xarab te lii ñu yàlla dafa ren jii wallaay mënuñu xamuñu kenn lañ koy amaat suñu dund kon ku ci nekk si ñun na nga fas sa biir xol ku ci nekk si ñun na ñaan yàlla li nga bëgg ku ci nekk si ñun na nga yàlla say loxo te xam ne yàlla rek kay maye. lu yàlla def nag am na lu tax yàlla lu mu def rek am na lu tax waaye nag gàmmu ren gii gàmmu dana gëj a mel ni moom ma ne bu yeboo ngeen lu baax li ma leen wax ma ne gàmmu ren gii gàmmu dana gëj a mel ni moom te xéewali ci yàlla def doomu aadama dina dund ba dee te du ko am comme que ñun la ko yàlla defal nag nanu sant yàlla bu baax comme que mu ngi taw am na ñoo xam ne fi ñu dëkk soriwul mën nañoo ñibbi am na ñoo xam ne fi ñu dëkk dafa sori ñu mën a seetlu ñu seetlu te ñu xam ne liñ doon ñaan yàlla yàlla may nañu ko li ci des mooy ñu ànd ak mbég da ci des moo ñaan nag am na koo xamante ni dan na gàmmoo fii waaye gàmmu ren gi ñëw fi xamul lu ko yóbbu feneen xamul lu ko téye ndax daa bokkul ci lii am na koo xam ne gëj na fee gàmmoo wala am na koo xam ne mosu fee gàmmoo waaye ren fii la gàmmoo ndax daa bokk ci lii ma ne dara yàlla neenul te dara yàlla amul hasard dara yàlla laa amul hasard gis nga xale bu góor bi taxaw sol seet naa bu weex bi sama doom la maag papam ñooy ànd bi ñu nekkee xale ba tey papam mën naa ne mus fee gàmmoo waaye papam fii la gàmmoo ren xel xalaat lay jariñ ma ne xel lay jariñ lu la yàlla boole faaw nga bokk ci mënoo ci dara xéewal gii nag ñun ñi fi nekk nii ci tànt bi ñoo ko moom jamono nag dafa tëradi ay soxla bari jamono naqari waaye yàlla moo fi ne te yàlla yor lépp kuy ragal ragalal yàlla kuy dénk dénkaan sa bopp yàlla kuy bàyyi xel bàyyil xel yàlla te xam ne yàlla rek ngay taalal sa loxo du ci li may tënke ci li may tënkee mooy ñu talal suñu loxo ñun ñëpp ku nekk si ñun fas li mu yéene ci biir xolam ku nekk si ñun fas li mu bëgg ci biir xolam ku nekk si ñun am yaakaar ci yàlla mi ñuy ñaan te ñu talal ko suñu loxo te ñaan ko moom yàlla dañuy may heure ñaan nag bu jotee. ku ñaanul perte nga waaye ku ñaan ku ne gañ nga ma ne heure ñaan bu jotee ku ñaanul perte nga waaye ku ñaan ku ne gañ nga heure bii heure ñaan la muy taw ñëpp daw muy taw ñëpp làqatu muy taw ñëpp def dugg feneen yow nga toog sëkku sa loxo tallal say loxo yàlla di ko ñaan yàlla du delloo sa ñaan kon nag maam a Cheikh Mat Fadal ci loolu laay tënkee ci loolu laay tënkee après sëñ naa laa ngi fi ak ñeneen ku bëgg a eggale nga eggale ci ay zikr waaye dama bëgg ñu ñaan dama bëgg ñu ñaan ba pare ñaan yàlla ni ñu yàlla digalee pour ñu ñaan ko te am yaqin na yàlla dañuy may la la mu wax ne yàlla yaa ñu sant ñu ñaan te qad daawnaka kama abantana kon fa ajibna kama waadtana waaw yàlla moo ne ñaan leen ma ni ma leen sante ngeen ñaan kon nañu ñaan yàlla ni ñu yàlla sante te yaakaar yàlla dañuy nangul nim ñu ko diggee moom sunu borom tabaraka wa kon euh, Cheikh Fadal nee na maam aas def ñaan bi kon li di ñaan yéen ñëpp mooy ku taxawoon boo mënee sukk fi nga taxaw nga sukk fa ku mënta toog sukkal te ñu tàllal suñu loxo yàlla waaye li ma gën a bëgg ci ñaan gi mooy ku nekk na am yaqin na ñaanam day nangu te ku nekk la nga bëgg nga fas ko sa te xam ne incha allah ñaan day nangu ku nekk si ñun def fatiha ku nekk si ñun def ayatul kursi yu ku nekk si ñun def ñetti lixlaas ak falax ak naas yi ñu fas suñu yitte maam as tëjal ñu ñaan gi te ñu xam ne suñu ñaan nangu na allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim uh, macha allah macha allah kii bi daal ni ko Mouhamadul Moustapha waxee bu ñu ko dégg rekk bàyyi ko mu jàll na ni mu ko répété léegi nañu ko waxe ko defee noonu du fatiha nga wax ba mu jeex ak ayatul kursi du dëgg du dëgg mënul ku ne rek amal fas yéene ko. waaw Fatiha ayatul kursiyu ñetti lixlaas. bu nekk am bismillahi rahmaani rahim. mu ngoog wala naasi salaatu ala nabi. waaw ñu teewlu ko nag ñu teewlu ko. te def yéene ji mu waxit ne mu wax la day dal bal la day dugg ci camp bi incha allah. te dinaa ci toftal ne bu ñu yàkkamti nañ ko jàng ndànk te bañ koo yàkkamti xam nga tax. suuf si luñ fi yàgg yàgg yàgg dañuy si lu yàgg ci biir suuf a ko gën a yàgg. Mhm. kon jarul ñu yàkkamti dara. Mhm. nañu ànd ak dal ca ñaan ko ndànk. Mhm. yàlla nangul ñu ko bu doon xéewal ci ñun ak suñu njaboot. bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. waaw kon nag bismillah ci ndigalal Mouhamadul Moustapha ñu def loolu. jëkk. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الله لا إله إلا الله وما بين أيديهم وعقبهم الشاء والشاء ولا يهوده حفظهما وهو بسم الله الرحمن الرحيم والله أحد Allahu Ekber. Cennet mektubu. Şerül vesvese.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 ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بسم الله الرحمن الرحيم ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم والله خير حفظا وهو أرحم الراحمين لو ما أقبلت من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إنا نحن نذرنا الذكر وإنا له لحافظون وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظ من كل شيطان مريد وكفى ذلك تقدير عزيز عليم إن كل نفس لما عليها حافظ إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدي ويعيد وهو الغفور ودود ذو عرش مجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث جنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ إن ربي على كل شيء حفظ إن ربي على كل شيء حفظ إن ربي على كل شيء حفظ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 xima yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla may nu fekk ko ay at yu bëree bëree bëri yàlla may nu ñu fekke ko ay at yu bëree bëri yàlla nu yàlla may ñu fekk ko at yu bëree bëri ànd ak xéewal ànd ak gu ñu nungu ànd ak ñaan yu ñu nungu incha allah am nañu ci di yaakaar bu baax a baax ndax man damaa wax ni bi ñu fi toogee ba tey muy góor ak jigéen kenn waxu fi bàkkaar kenn defu ko te yàlla boo deful bàkkaar rek du la ko bindal boo deful bàkkaar rek du la ko bindal ndeeg boo defee ngay wax astaghfirullah mu jéggal kon boo ko deful sax du la ko du la ko bindal kon nag yëguma fi ku def bàkkaar wala mo wax ko kon nag yal na nu yàlla tëbb ci xewalam yi ci xewalam yu yaatu yi yaa xayu yaa qayyum yaa xayu yaa qayyum yaay fajkatub aajo yi fajal na sunu aajo joxe ma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala sayyidina ci Salam Vision. allahumma salli ala sayyidina muhammadin ju ànd ak vision fu sori waaw mooy Salam Vision yéen xamante yéen koy seetaan dama leen di diggal ngeen teel a dem gaaw abonné ci Salam Vision mbaa yëg nga leen ñun ak yéen dañuy ànd dem Tivaouane. waaw bu laajte xam nga ko gàmmu gàmmu ñu fas yéene ànd. dem Tiwaawoon gàmm jour si gàmm lan demee gàmm ñu ànd ak yéen lépp loo xam ne day tukki Tiwaawoon waaye lépp fépp foo xam ne ñi ngi fay gàmm guddi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak waa Salam Vision fas yéene ànd ak sama équipe dem teewal leen fa ñun waa Salam Vision fépp fu leen bëgg a dem te seen tànk jotewu fa ñun waa Salam Vision dinañ ànd ak yéen duggal leen biir Tiwaawoon duggal leen li wër Tiwaawoon fa séenee leen a wan lan moo waral dëgg dëgg dëgg ñuy gàmmu waaye lan moo waral dëgg dëgg dëgg dëgg ñuy màggal guddi yonente bi alayhi salaatu wasalaam yow lu ko bëgg a xam dama lay wax en suivant tegal sa baaram foofu nga daw gaaw abonné ci Salam Vision mbokk yi Salam Vision daal coono askan bi rek moo ko tax a jóg Salam Vision jàmm ju ànd ak xiiwal allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim